lay def leen digalul sëriñ bi sëriñ bi dafa wax ne ñiy yëngu ci dëkk bi nañu dellu ci kër yi warmaale ko sëriñ bi sëriñ bi dafa wax ne ñiy yëngu ci dëkk bi ñiy yëngu ci dëkk bii di Touba nañu dellu ci kër ya warmaale ko sëriñ bi sëriñ bi dafa wax ne jox na ndigal bépp taalibe bu yaakaar sëriñ Touba képp kuy yëngu ci dëkk bi nu dellu ci kër yi ngir wormaale ko sëriñ bi ndigal laa ngoog